wax leen nag ni combat bi ci kattanu yàlla ndax yàlla dëgg rek lay àndal combat bi on va le gagner ndax biñ ko yëkkateeg léegi stratégie bu ne utiliser nañ ko pour allumer des contre-feux coupe d'Afrique jaar na fi ay combat de lutte jaar na fi coow yi ñu andi temps yëpp nga xam ne pour divertir sénégalais yi la lépp pour fexe ba essouffler le mouvement waaye le mouvement est encore là vivant

parce que li ñi wax yépp lu am la wallahi lu am la tay ci suba jot nañu ben article African Intelligence tay ci suba comme dañ ma may temps gatt may lañ ma rek ma daanel mané tay ci suba jot nañu ab article bu wax ni Cosmos 30 yi ko déssé won ci suñu gaz 20 yi jaay na ko eh, compagnie nationale Abu Dhabi xam ngeen loolu ñuy def di jël alalu Sénégal di ko jaayantu ay di ci am ay milliards yi milliards yi milliards depuis ba jaar ci Timis jóge ci Timis dem ci Cosmos jóge ci Cosmos dem ci BP léegi ñu ngi mu ngi ci Abu Dhabi kenn xamul senegal ñaata milliards la ci pert te liñ ci waroon am sax ci fayeku ci impôt duñ ko ci fayeku balaa ñu naan nañu wax ci inondation bi peuple sénégalais laa bëgg a waxal nit su la dara dalee

waye ku lire si MOU bi di nga ne ab ministre sénégalais mu a signé lu mel nii Sénégal ak Turquie moo tax waa Sénégal commencé ko ci aar ñu bokk waaye c'est un combat citoyen c'est pas un combat politique li xew Algérie du parti politique citoyen yi la li xew Soudan du parti politique citoyen yi la li xew tey Hong Kong du parti politique citoyen yi la li xew France yu gax gilet jaune du homme politique citoyen yi la man mii teew fii teew ma fi en tant que homme politique fi teew en tant que citoyen askanu senegal nañu yeewu dafay caaxaan bi ñu leen di divertir ci ay débat yoo xam ne amul benn solo ñu xëy suba ba ngoon di ci di ci dissertation te loo boobu jamono li woon farata ci réew mi ñu ngi koy bàyyi ci gannaaw.